jërëjëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média tey di gaaw fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2023 ñu ñëw ci xibaaru mbarax yi ñaar euh, ñaari juróom-ñaari waxtu jot na tegal fanweeri simili ak juróom benn di jégalu ci yéex tàmbali gi li ci gën a fës ci xibaar yi ñii di euh, waa marine nationale di soldaaru géej gi teg nañu loxo lu tollook euh, ñetti tonnes ci mbirum cocaïne ñi nga xamante ne ñoo def ñaawteef yi dinañ ci ñëw ñoom ci boppam xayma gi euh, càmbar nañ ko lu tollook téeméer jàpp ñaari téeméeri milliards ci suñuy koppar dinañ ci ñëw ak leeral geeg ki nga xamante ni mooy Jibril euh, Diawara bokkul ci marine nationale. dinañ wax it tamit ci euh, soldats yi nga xam ne ñoo fàttu démb fële ca Sindia ca boori euh, Casamance ñeenti soldats tey jii nag suñu reporter yi xëy ji fële ca Ndar dem ca kër Jéeri Diallo bokk ci ñeenti soldaar yi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan ci euh, mine boobu daal di tàkk foofu fële ca Sindia mu nekk nag lu doy waar waa njaboot gi nekk ni ñoom ñëpp fësal ni ñàkk nañ koo xamante ni ku amoon solo la woon ci biir famille yi dinañ wax it mbirum politique ak euh, ñii di waa parti socialiste tey ci ngoon gi la ñu daal di jëmmal kii di Amadou Ba lëkkale ñii di waa parti socialiste ak waa APR ñoom tamit euh, baat bi doon na benn ñi ki nga xamante ne mooy Amadou Ba lañ daal di tabb mujj fas yéene euh, fas yéene wane seen njàppale ci kii di amadu Ba mu nar nar a nekk candidat bu Benno Bokk Yaar ci Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi ñu jëm. dinañ wax it ca diocèse bu euh, Thiès ñoom nag amal nañu ab lël bu am solo boo xam dañ doon waxtaane solo évêque ak it tamit surtout fii ci euh, Sénégal seen taxawaay surtout ci jamono ji nga xamante ni Sénégal mi ngi ci waajtaayu élection euh, présidentielle yi ñuy jàpp ci weeru février ci atum 2024 loolu buñ ci tegee xibaaru tàggat yaram yi daal di xibaar yi daal di buur nes tuut ñu ñëw yaatal xibaar yi ci kàllaamay Kocc ñu tàmbalee xibaar yi ak euh, waa police ñi nga xamante ni teg nañ loxo ay dew defkatu ñaawteef ñoo xamante ni miin nañu lool bu ñu sukkandikoo ci commandant Sankaré miin nañu mbirum euh, yoon ñoom ñooñu nag dañ leen daal di teg loxo liñ di war def ci ñoom wala li ñu fekk ci ñoom ay arme blanche laak yeneen jumtukaay yoo xamante ni day euh, ñaawteefal wane ni dañuy def ay ñaawteef bu sukkandikoo ci commandant commissaire Sankaré mi nga xamante ni jàpp nañ ni ñoom ñëpp nag dañ daan liggéey ak gang bi di ñii di boy Boy Djiné ñu teewlu leeral geek Fatima Touré. paaka pistolet coupe-coupe wala sax yi lañu yor di lëmbee mbir Ndakaaru ñoom ñi nga xam nag ay defkatu ñaawteef lañu police nag ci ab opération de sécurisation maanaam aar askan wi ci lañ rek daa ci démantelé li nga xam ne nag moo di réseau defkatu ñaawteef yii. guddi 25 26 novembre dem fële ca Colobane bañ demee foofu ca Colobane également ñu attaqué fa benn boutique. saax-saaxe fa tiire fa ay bal ñu ngi woon toujours ak benn oto bu ñu yore woon moom lañuy ñuy opéré ñoom ci guddi 28 29 novembre ñu dem tamit golf ci benn magasin ak ci benn kër gaañ fa gaañ ñu metti gardien yi ak waa kër ga tiire fa ay bal daw jël fa koppar ak yeneen dem seen ñoom le 29 novembre aussi boobu gis nañ ko sax ci réseaux sociaux yi mu am même personne yi nekkoon ci moto attaqué benn nit fii nii pour jël xaalisam heureusement ba bañ koy topp moom ñu jot ko a jàpp waaye balaa boobu moom nii ku ñu jàpp ki tiire woon na ci foule bi nga xamante ne moom moo ko doon euh, poursuivre benn policier sax blessé wu woon na ci mooy policier bi ko doon jéem a jàpp ñoom ñu ngi hôpital ñu ngi ci ab investigation ñoom xam nañu ni sax benn réseau bu organisé la ñu jóge rek biir kaso daa di génn ba ñu génnee nag ci lañ rek daal di def benn say ngir rek dox dem jël li nga xam ni la askan wi daa di moom wante nag police ci xarañteefam tas na li ni mel. investigation yooyu ñu def nag. moo ñu permettre bànd boobu noonu doon opérer fii ci Dakar ñu jàppaleen bañ leen jàppee ci enquête bi wane na bànd bi ñu ci gën a bari ay repris de justice lañ maanaam mooy ña nga xamante ni jéem def na woon nañ prison foofu sax ñu ci gën a bari ci lañ xamante formé wu ba ñu génnee di def ay acte di cambrioler di sàcc di gaañ wuti ay armes di def naka su dul noonu waaye sunu ndigalu kilifa yi ñu joxoon ay instruction yu wóor yu leer nee na sunu kéemtalaay kàttan nañ ko def pour rassurer population bi pour mener ay investigation mettre hors d'état de nuire nit ñi ci ñoom lañ def ba arrêté leen ñoom ñëpp ñu gis ni nag police boobu ba tey mu ngi taxaw temm ngir aar askan wi ci lépp loo xam ni dafay jëm ci seen wàllum kaaraange tey nag réseau bi nga xam ni nag dañ ko démantelé nee nañ bokk na nag ci opération sécurisation yoo xam ni ñu ngi koy def boobu ba tey ay weer ci ginnaaw de rek dinañ ko continuer ba nga xam ni lépp lu jëm ci askan wi dinañ ko mën a rek daal di aar ci ñu mu gën a yaatoo Fatima jërëjëf ni ma leen ko doon waxee ci bopp jotaayu xibaar yi waa marim national tek loxo lu yemoo ko ñetti tonnu cocaïne ñu ngi ko teg nag ci euh, waaxi Sénégal leen yi nga xamante ni ñoo def euh, lu ni mel mu nekk juróom-ñaari euh, doomi aadama ñoo xamante ni kenn ki sénégalais la juróom yi bokk fële ca Guinée Bissau ak kenn koo xamante ni doomu Venezuela la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni mooy capitaine bi Djibril Diawara ñëw na ci indi ci ay leeral ñu teewlooy kàddoom. ñu jàpp benn gaal euh, bu tudd Enten Faye euh, ba xam ne si biir fekk nañ ci donc cocaïne ak juróom-ñaari nit ñoom ñëpp jàpp nañ leen indi leen fii ci base navale amiral Faye Gassama euh, ci teewaayu police douane gendarmerie ak yeneen service yuy liggéey ci xeex drogue ñoom ñëpp bañ ñëwee jébbal nañ leen gaal gi drogue bi ci nekkoon ak ñi doon dawal gaal bi ba ñu wàccee drogue bi euh, ba xayma ko euh, donc fekk nañ ci lu toll ni trois lu de cocaïne waaw trois tonnes de cocaïne nag euh, boo ko doon xayma si xaalis romb na téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn milliard ci CFA loolu nag mooy njëg bi gën a néew bi mu mën a am. njëg boobu mën na dem sax ba toll ni ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards euh, boo doon xool euh, njëgu cocaïne ni muy changé si at bi ak euh, ci diggante dëkk yi waaye ñoo ñëpp nag jox nañ leen police ak douane ñoom ñooy def enquête yi ngir mën a ngir mën a wax drogue bi fan la jóge fan la waroon dem ña nekkoon ci trafic bi ñu desandi ci euh, armée bi kii yi Diallo lay wuyoo moom bokk ci soldats yi ñeenti soldats yi Sénégal yi ñàkk euh, seen bakken gannaaw euh, ab opération bi nga xam ni ñu ngi ko doon amale fële ca bët Saalumu Sindia mu nekk na xibaar bu tiis tey jii su suba si suñu reporter yi xëy nag fële ci seen kër moom nag doomi Ndar la mu nekk koo xamante ni wax naa ko sànq mi ngi doog a fas soxna waa famille ba nekk ci njàqare ak tiis ñu teewlu reportage beeg Ousseynou Diop. man jéeri bu ma waxee ci kër Djéri Diallo di benn ci ñeenti soldat yi nga xamante ni dañu faatoo ca Nord Sindian seen oto mooy yëgoon ci benn ndell foofee nag la ñu mujjee ñàkk seen bakkan ñoom ñeent seen kër gi ñu desiwaat fa waaye juróom bu jigéen daani ko xolam dafa jeex te ba nga xamante ni sax si lay def ay témoignage ñeen ñi tam nga xamante ni fii lañu dëkk nekk ci koñ bi jàpp ni nag daan nañuy ñàkk xale boo xamante ni ko amoon yar la. doom joo xam ne bu commencé jàng ba mu commencé jàng la am amatuma coono danaan jàng fa wàcc samedi dimanche day dem si usine gaz ba di dem journal yi ñëw di ma jox soxna ma ñu noonu toog waaw ma ñu noonu toog déedéet amagul doom mu ko takkee yàggul jéeri nag tey rek la ñu am nu naqari ci moom ndax jéeri ba mu xamee xàmmee ba léegi jàmm rek la xale bi am jéeri yërëm na ndeyam jéeri yërëm na nu ñun ñi dëkk ak ñun juróom bu góor moom it daal gàcce yi yàbbi xamle na ni tey jile naqar dëgg laam mu gis nii doomam bile ku ko amaloon njariñ la. doom la nag man gërëm sant naa ndax lu nekk defal na ma ko kër gi ma ko yore moo jël ceeb moo jël dëwlin loolu ay rakam lu mu soxla mu jox leen ko ay magam lu mu soxla koñ ku soxla mu jox la jox la man dem na ma daal ma sama doom maa ko jur maa koy gërëm. Djiri Diallo moom bokk na ci ñeenti soldats yi nga xamante ni fële la ñu fàtte woon ci nord Sindian ñoom nag seen oto mu daal di yëg ci benn ndell moom doomu ndar bile bi mu tekkee soxna sax yàggut loolu sax bokk na ci li nga xamante ni tey jile moo gën a yokk seen i naqar Ousseynou Diop euh, jërëjëf ñu wax ci leneen ci jamono ji nga xam ni mbirum euh, immigration clandestine la ñuy waxtaanee waa yaraax ñoom ay ndaw yu dajaloo duppee seen indi initier benn euh, festival bu ñu duppee kaay wane li nga mën wane beneen yoon boo xamante ni mën nga toog fii tekki fii ñoom nag gën a ñoŋal ndaw ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci mbirum entrepreneuriat ñu teewlu ci ak reportage bi Ibou Diouf ak Abdoulaye Anne bu ñuy wax ci immigration clandestine ak ñi nga xamante ne ñoo ci loru diwaanu yaraax ñàkk na ci ay doomam yu bëri ñeneen ñi am ci ay jafe-jafe moo waral nag ay ndaw yu fi yeewoo am xalaat taxawal benn initiative bi ñuy duppee kaay wane li nga mëne di ab festival boo xamante ne dañ ci sukkandiku ngir gën a dooleel ñu yëngu ci wàllu entrepreneuriat. raison pour laquelle ñu jël suñu première édition festival kaay nga wane li nga mëne thème central bi ñu tuddee ko Barça wala Barsaax mënoon nañ yem kese si jël gaal gi mais dañ ci boole Barça wala Barça kii di wax Barça wala Barça kooku dund ak dee bi la yemale te bu ñu gisee jeune bu mel ni ñun di yemale dund ak dee bi di jël voie voie boo xam ni dafa illégal kon am nañ ci euh, part de responsabilité pour conscientiser leen. muy xalaat boo xamante ne magum dëkk bi ñu ngi koy rafetlu tey ñaax ndaw yooyee ñu gën a góorgóorlu ci li ni mel tey mooy tëndiku tukki bu jaarul yoon boobee. ak mhm. ak mhm. festival kaay wane li nga mën a nag ñu amal ko fi nga xamante ne mooy diwaanu yaraax bu weesoo nag xumbite yi ci amoon toog nañu waxtaan tamit ngir sottante xalaat ci ni ñu mën a def ngir am ci loo ñu mën a jàpp euh, festival bi li ko war waraloon mooy dañoo nekk ay entrepreneur gis ne suñu moroom jeune entrepreneur yu si bëri ñu ngi toog amuñu ko leen jàppale amuñu aussi visibilité bi ci war ba war a mën a def seen i activité comme il faut ñu ne pourquoi pas ñu initier suñu suñu suñu doole boole benn xalaat bi créer benn affaire boo xamante ni buñ ci jógee képp koo xamante ni jeune entrepreneur nga di nga am visibilité. festival kaay wane li nga mën a amoon na tamit ay xumbite loolu yëpp ngir mën a jàllale message bi aju ci wàllu sensibilisation. lu ñu bëgg mooy ndaw yi fi yeewoo dootuñu am xalaat ngir jaar ci biir géej gi ngir uti lu ñu am Ibou Diouf euh, jërëjëf ñu wax ci wàllu politique kii di amadu Ba waa parti socialiste dëggal nañu seen jàppale ñoom ci boppam euh, bu ñu sukkandikoo ci euh, secrétaire parti bi di Aminata Mbengue Ndiaye fésal na ni jàppale gi nga xamante ni waa parti socialiste fas yéene nañ ko jàppal tànk kii di Amadou Ba mu daal di nekk candidat bu benn Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi ñu jëm ci atum 2024 moom mi nga xamante ni moo yor nekk secretaire général bu parti socialiste ñu ngi doon am ndaje bi tey ji ngoon si fële ca siège bu parti socialiste fii ci Colobane Aminata Mbengue Ndiaye nag wane ne ni li tax ñu gën a dëggal seen jàppale kii di Amadou Ba jàpp nañ ni moom Amadou Ba nekk na candidat bi nga xamante ni moom lañ gis ni moom moo leen war a gën a mën a ñoŋal euh, liggéeyu euh, kii di euh, président Macky Sall xam naa leeral geek kaddu kii di Aminata Mbengue Ndiaye dinañ ci ñëw ci kàllaamay tubaab ak Cheikh Tidiane Diaw. ñu wax ci leneen euh, lii nga xamante ni mooy waa jose bu euh, Thiès ci ñoom dañu amal ab ndaje ab colloque bu am solo boo xam ni dañ ko doon def nag waxtaaneek euh, lii nga xamante ni mooy mbirum évêque ak taxawaay beek surtout fii ci contexte bi nga xamante ni Sénégal noonu la ci taxawee ak it tamit taxawaay ji ci waajtaayu élection présidentielle yi nan lañ ci war a taxaw taxawee ak it tamit ñoom seen rôle yeeg ak message yi nga xam ne jàllale lañ ko ci ñu teelu leeral geek kii di Daniel Diouf. nam yu wóor ak teggin ak yar violance amul amul njëriñ wóor ne fitna amul njëriñ kon nag li ñuy ñaan nit ñëpp ñu ànd ak xel bañ a saaga sa morom bañ a wax loo xam ne ne du tax ba réew mi jog waaye bu fekkente ne ku nekk ci ñun laal nga sa programme woon ko ci li gën a rafet nga bàyyi citoyen yi nag ñu jël seen disposition parce que ku nekk yaa am droit tànn ku la ne ku la doy pour nga a nekk jiite suñu réew. voilà mu nekkoon euh, élément bi nga xamante ni mooy euh, archevêque bu Dakar ci micro Daniel Diouf ñu doon waxtaanee taxawaayu euh, Sénégal ak ci waajtaayu élection yi kannaaw ab lël bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko amal fële ca diocèse bu Thiès. dañ ci ñëw gën ko indi ci ay leeral ak reportage bi nga xam ne Daniel Diouf defal nañu ko ñu wax ci leneen mbirum euh, ordre docteur vétérinaire yi ñoom nag fi mu ne nii dañu gën a mën a ñoŋal seen tànk taxaw temb gën a dànkaafu ñii nga xamante ni dañu dugg ci seen métier bi te amuñu ci euh, diplôme yi war ñoom nag euh, ñi ngi teg ak dànkaafu yoo xam ne ñi ngi koy wax ñii di autorités yi ak i tamit wax ci ñii nga xamante ni ñi ngi daanaka yàq seen liggéey vétérinaire boobu ñu teewlu ci leeral geek Al Assane Ba ak Amadou assemblée général bi dana tax ordre des docteurs vétérinaires yu Sénégal xoolaat seen taxawaay ci lu jëm ci wàllum seen liggéey bi am na si ñoo xamante ni ñu ngi ciy def naka sudul noonu di jalgati li yoon santaane di jaay itam ay garab yi nga xamante ni teguwut ci yoon li ni mel ëlëm leen conseil bi sax jot na ci traité ay cas am na ci yeneen yoo xamante ni nag traité wu ko ay jalgati yi nga xamante ni ay pharmaciens ay vétérinaires ay paravétérinaires ak yi ni xeetoo ñoom ñoo koy amal. dañu seetlu ci réew mi nii tey ku jóg nekk na docteur wala nekk na docteur vétérinaire ku jóg bëgg na sol mbubb moo xam ne jotu la du sa mbubb ba pare di def la nga xamee ni wax su dëgg yàlla euh, da nga nax population bi da nga tooñ euh, askan bi da nga yàq jur gi wala da nga yàq sant nit ñi. loolu moo tax tey ñun ñu taxaw ci thème te moom la ñu nar a waxtaanee fii bu ko defee bu ñu fi jógee ñun des vétérinaires suñu wàll defe naa dinañ ko bay ba mu leer ba nga xamee ni képp ku taxawati di faj jur. ne man docteur vétérinaire la dafay fekk yow mii am nga autorisation exercer. défi bu njëkk pour ordre bi mooy fexe ba ñu mën a tënku ci li yoon santaane muy loi numéro 2008 07 bu 4 janvier 2008 mi nga xamante ni moom moo organisé lépp lu jëm ci wàllum liggéeyu vétérinaire ak pharmacie vétérinaire ci Sénégal. dinañu gis ay infraction bu ñu ko gisee dinañu bind dinañu jébbal euh, état bu ñu jébalee état nag di xaar état réagir. am na ci ñoo xam ne sax ordre mën na porté wu partie civile pour intenter des procédures judiciaires mooy ñi nga xam ni bokkuñu ci kuréelu ordre yi mais ñi bokk ci kuréelu ordre yi ñun bu ñu gisee ay écart dinañ leen yóbbu li ñuy wax commission de discipline donc le conseil va s'ériger en conseil de discipline danañ leen mën a àtte foofu ba pare def leen ay daan daani radiation sax mën na ci am mooy maanaam li ñu ko mën a tuddee maanaam dañ leen di daax donc mu nekk loo xam ne dafa am solo. fexe ba assainir seen milieu bi. ngir gën a aar askan wi comme que nag seen pouvoir dafa limité ñuy sàkku ci puissance publique yi ñu jël seen responsabilité ci mbir mi. di xaar ci état bi mu dooleel ordre yi parce que ordre yi tey état moo leen fi teg pour mu saytul leen liggéey boobu mais boo seetloo ñun ordre des docteurs vétérinaires de, de du Sénégal y a même pas une subvention de l'état lépp c'est les membres ñooy cotiser di ko def di liggéey nag liggéeyu état. assemblée général ordinaire bi thème biñ ci tànn mooy liggéeyu vétérinaire ci xolu wérgu yaram askan wi dana nekk occasion itam pour orde bi présenter rapport activité yi ñu jot amal ci 2023 jàpp 2024 ñu jàll ci wàllu tàggat yaram fële ca euh, liggéeyu stade bu yëmbal daanaka lépp yem na bu ñu sukkandikoo ci meeru gox ba ak ñi nga xamante ne ñooy waa AGETIP ñoom nag fësal nañ ni ay jafe-jafe moo taxoon li liggéey bi tàmbali yéex a tàmbali waaye fi mu ne nii nag lépp yemb na ba ñu mën fas yéene tàmbale stade bi nga xam ne jàpp nañ ne dina tolloog euh, juróom-ñetti junni place yoo xam ne waa yëmbal lañ ko jagleel ñu teewlu lu rendu geeg Cheikh Sadibou Diarra bu mouvement yëmbal léegi mu jeex stade municipal bi ñu bëgg dinañ ko tabax liggéey bi di door gën ngaa yàgg weeru février atum 2024. suñ doon togg dañuy wax ne ne sóor nañ parce que euh, lii nga xam ne moo doon bloqué si euh, wàllu fond donc ak effort bi mairie bi def ak commune bi def ensuite AGETIP garanti yu mu jox jàpp nañu ne tey euh, liñ doon li ñu yàkkamti yàkkamti defe naa ni ñu ngi si yoon bu baax bi parce que dafa am yoo xam ne aussi dafa am ay procédures yoo xam ne ku nekk ci ñun maîtriser wu ko. defe naa ne bi ñu si am mooy que AGETIP bu wax euh, ñu ngi si cappaandool gi defe naa ni euh, incessamment comme ni ko maire waxee ak euh, ak le coordonnateur donc fii ak janvier mën nañu am yaakaar ne day démarrer nañu tàmbalee rek parce que population loolu la soxla donc je pense que c'est c'est imminent bis bu ñu gisee xam ne nag wax dëgg yàlla ne ne méngoowul wul li nga xam ne moom la procédure su boobaa ñun dañuy gën taxaw wax. tardé bi ci tabax bi. am yu ko waral. bi ñuy def terrassement hôpital dante bailleur de fonds yi ci banque mondiale yu bëri nañ cee nekkoon. condition yi mooy lu ñu fa jëlee ci euh, lu ñu soxla rek dañ koy deg quelque part ñu ñëw xool ko ba joxee validation mën a jëm ci population yi loolu moo tax ñu ne bu ñu stocké grava bi nañ ko ñëw toj ba lépp mokk amul benn produit toxi amul benn produit nocif euh, loo xam ne bu jógee ci yenn barab yi il faut ñu toog sayt ko ba ñu jox ay cutis ñu mën koo jëmee ci population dafa am benn tuyau bu ñu war a defar bu jógee yëmbal sud war a dugg ci bassin bi ñu war ko raccorder te euh, entreprise su nekkoon nangu ko woon defar mais je mobiliser les moyens de la mairie pour defar tuyau boobu et puis liggéeyu stade bi euh, liggéey bi ndax fañ ko tegit technicien ñoo jox assurance que lañ fa teg du fa yàq dara bu agee yenn kii rek yenn montant rek ministère moo koy moo koy approuvé léegi bu ko defee ba pare dañ koy yóbbuwaat DCMP ñu immatriculé ko jox ñu ko ñu jox ko entreprise yi ñu daal di joxe ordre de service démarrage stade bi ñuy taxawal ca Yeumbeul dina am 5000 places ngir toog ak yeneen. en fait c'est évolutif. on peut mettre des tribunes découvertes en face wala latéralement. mais li ñuy ñun suñuy projet liñ ci liñ ci liñ ciy saytu daal mooy en fait un stade. de 5000 places. du gazon naturel. gazon synthétique la en fait. te gazon synthétique des normes. dañ fa am koy defaree daal. c'est vrai que y a une plateforme am na yeneen couches yu ñu ciy def am na aussi benn collecteur principal bu ñuy def pour évacuer les eaux pour bañ bu buy taw sax en fait nit ñi mën faa mën fa football daal nekkul réseau bu ñuy ñëw rek posé nii rek di ci football donc dafa am à des normes techniques yoo xam ne nii loolu moo tax muy xaw a xaw a xaw a jël tout le temps stade bi ci dëkk buy màgg ni yëmbal dina am solo lool ci ndaw ñi ba noppi dooleel sport bi Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf ñu ñëw ci juróom-ñetteelu bëccëg bu championnat Ligue 1 bu Sénégal tey jii ci ngoon gi ci stade euh, Iba Mar waa Jaraaf bu Dakar dañ daal di témboog waa AS Pikine kenn dugalul dara ñii di waa jàmbaar bu sali dafa daal di daan bu euh, jamono bu Fatick benn bal ci dara suba nag ñu fas yéene xaar match bi nga xam ne mooy dox ci diggante euh, Casa Sport fas yéene jàkkaarloog ñii di waa Génération Foot loolu moo doon bural xibaaru mbarax yi des Cheikh Tidiane Diaw dina ñëw wutuma fii farañ fàcce leen xibaar yi ci kàllaamay français ñun ñu jox leen dig daje ba beneen ñu fanaan jàpp